tubaarkàlla wax nga sa digganteeg làmb sa digganteeg Sidi Lamine manquement bi. waaw bi di fa jógee la manqué. ah trop. ndeysaan jóge naa wal mhm. ay jour du ma nelaw. ndeysaan. Hmm? waaw waaw. ay jour parce que ah, man man jànguma presse. man li ma jàng yëpp wal fajiri ba école la woon ci man. laay laay man xam nga dan ma daan fay. mais école buñ ma daan fay la. oh. man dama doon jàng. ma am un grand professeur bu tudd lees Less Camara. ndeysaan. am ay collègues yoo xamante ne nii ñoo may ñu ci bëri am na yoon ma jàngal am na lu ma leen jàngal. Mm-hmm. man am na ñoo xam ne maa ngi leen gis ñuy def ay journal télévisé ci yenn télé mm-hmm. man bokk naa ci seen formation. Hmm? am xam ne maa ngi gis ñuy def ay émission émission yi am ndam man bokk naa ci seen formation mais ñoom it bokk nañu ci sama formation dëgg la parce que man jaaruma ci benn école. Mm-hmm. man directement foofu la te man ñëwuma woon pour bokk ci rédaction bi man maa amoon sama cogte gu chaque jour ma ñëw mais man làmb la ma dénkoon ak njéenum Sénégal njéenum Sénégal sax ci gënoon a fës làmb ja ma ci dugal cey parce que comme que bi may xale dama gëm sa bopp gëm may xale damaa oh. bëggoon làmb din daan dem ma xëri caam billet cinquante francs sax jënd naa ko seetaan naa fa Robert seetaan naa fa jaw Ndiaye seetaan naa fa Samba Diaw seetaan naa fa Souleymane Diaw Mbaye Guèye ñoom ñëpp seetaan naa leen foofu mhm. bëggoon ko bi ma ñëwee nekk ci yor folklore mu doon tradition mhm. mais man leen jox leen ma làmb ji ñu jox ma làmb ji ma dem làmb ji di reporter mhm. bi ma njëkkee jox làmb ji ma dem ca làmb ja sa premier reportage. premier reportage jar naa loolu war naa neex de jar naa cent milliards. ah ñu ci Ndiaye. <laughs> waaw la di ah. Ah, bi sonné sama fit bi naan tëf tëf. naay naay ma programme bi. ah bisimilah rahmaani rahiim ni ne jël. ah waaw allo. naan oui y' a El Hadj Bekkay Mbaye kii au stade Mar Diop. nous allons l'appeler allo El Hadj Bekkay. Mm. ma ne la ilaha illallah. <laughs> ay waay alaay mooy def journal du auditeur. <laughs> waaw ko ay waay Aminata Sarr El Hadj Bakay Mbaye laa <laughs> rek am fit. waaw waaw noonu rek. rek may am retour rek. affaire bi neex affaire bi neex. ma ne waaw. oh. <laughs> ma ko maa ngi fi Badji Badji ma woon ma dañ ñu lay dugal ah Badji ma ko waa Badji lu may wax mu ne ma sama yoon newu ci. Ah. ndeysaan gaañu na yàlla na ko yàlla xamal ma ñëw nga ñafe ko waaw waaw yow lii day dara lii day dara bi mais nekkate bon naturel lay dem wallaay dëgg la bon naturel way way Aminatu Aminatu jox ba ma dóor reportage dóor dóor wax wax way mi ngi fi Iba Mar Diop mhm. combat diw diw mhm. ah jox programme bi xam naa dans quelques instants combat yi dinañ commencer après mhm. journal ma jëlaat leen ma wax leen li xew fii ci stade Iba Mar Diop combat bi Gaston benn ko organisé nangam na ko yàlla yërëm ah. mu ne waat merci El Hadj Becaye nous reviendrons dans quelques instants ba ma coupé. noo def Ndiaye. nooyi naa nooyi boo xamante ni musuma koo nooyi. ay Ndiaye nga ni ma. ca saa sama woote waat. waaw. jot Badji. Eh. non ba ko dama ko ne merci Badji ngi ci ligne bi. waaw technicien bi jël ni ma fiis man ko mu ne ma toj nga réew mi. <laughs> ma ne ko bàyyi ay wax mu ne ma xoolal. nii eh. rek la nag. wallaay mbay xoolal bu fi sonal sa bopp. dëgg la. ma ne baax na. nga lay ndeysaan ma nga Sénégal. wallaay dëgg la mbay. mais xoolal oh. ma teg ma teg téléphone bi sama lii nag lay def. waaw waaw yenn saa yi ma woo ko Badji dugalaat mu ne ma ah, yaa ngi bëgg a. yaa ngi bëgg <laughs> li ngay def ba fuuy si. ndeysaan ndeysaan yow séeréer rek bu journal bi jeexee dinaa la. dinaa la joxaat ndeysaan journal bi jeex. waaw mu dugalaat ma. ndeysaan ma reporté combat yi jeex. Oh. ma ñëw romb Sidi Lamine Niass. waaw Sidi Lamine ah, man de waaru naa mbayeen bi yow ndekete mën ngaa reporté. Hmm. ah ma ne ah patron bee wax lii. ah ma maa ngi ko rus nag. waaw yooyu man la kay ah mbay mbay mbay ah baax na de. ma mu fexe ba wan ko ginnaaw rek man taluma ko man ña kaw laa tal. waaw waaw journaliste yi ak ñooñu. ma ñëw ñu ma dugg see rek gars yi yuuxu am nañu reporter am na kontaan ñëpp kontaan. oh ñoom Souleymane ñaan nañ ma grand merci. nijaay bis boobu doo ko fàtte de ndax bànneex doo ko oh. fàtte parce que c'était waaw parce que dañuy fital. ma am fit nag effectivement léegi ndekete dara. may dem nag ci kër mbër yi. dem kër màng kër màng laa jëkk a dem. ah Mbapatu booy bambara laa jëkk def reportage. Mhm. kër manga laa jëkk dem comme lutteur. bureau Gaston nga laa jëkk a dem. Mhm. Mhm. seeti promoteur. Oh. waaw loolu daal loolu daal noonu laa miine lamb Gaston dama dem ci moom wax ak moom ma ñëw ñu ko asalaamaaleykum mu ne ma maaleykum nga Gaston mu mel rek. ma ne ko. Gaston na nga def Mbengue mu ne ma noo sant ma ne ko Mbaye lan la ma ne ko man reporter laa reporter lan mu ne ma ne ko lutte foo nekk ma ne ko Walf Fadjri mu rajo bees ba ko waaw mu ne ma toogal. ndeysaan ci saa si. oh commencé nekk sama xarit. waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di ma yedd. Ah, naan ma lenn rek laa la yëgal. Mm-hmm. bu la kenn dugal ci ay xeex. très bien. te moytu gars yi bu la mayee xaalis dañuy dem wax ko Sidi Lamine Niass. waaw dégg nga loolu. na nga mooy moytu dégg nga. ndeysaan dañ lay may xaalis ni corrompre la. waaw woo sii di yàq sa der. yàq sa der. comprendre nga. Oh. yooyu daal laa lay waaye sinon. ca la ma jàppe xarit chaque jour Gaston woo ma. damaa oh. mujj tiit ni waa kër patron bi di ma woo. bis bu yàlla waa dafa am la ma gis ci rek am lu ma gis ci yow rek. am affinité ak les dëgg la les managers managers yi ñoo ma gën a bëgg. ndeysaan. waa paa dëgg la ah non ñooñu ñoo nekkoon sama. ndeysaan yi jaxate. Jaaj Jéen. ndeysaan Jibi Gaye. ndeysaan Pa Moustapha Diaw. Mm-hmm. Pa ñooñu daal. Mm-hmm. bëgg ma. nga xam ne nag kon man maa ngi ci yoon wi. ah oui chaque jour ma woo leen ma toogee ba si yàgg dem seen grand place toog mm-hmm. déglu waxtaan bi. ku wax ma ne la nii. surtout ba nand affaire surtout. dem ci mbir oh. seeti leen par benn benn. woo Mbaye Gueye wax ak moom. woo Robert sama copain la tamit. ndeysaan ndeysaan la nekkee sama xarit. ndeysaan mais ki ci doon sama kóllëre. mooy Mor Fadam. Mor Fadam. Mhm. dama lay nettali Mor Fadam. Mm. damaa wutal sëriñ. sëriñ aywa di jaay bàyyi. danaa la nettali lu garaaw. <laughs> aca aca Mor Fadam. Mor Fadam damay toog ba ci ak benn sëriñ ñëw ni ma Mor Fadam lay seet ma ni waay Mor Fadam tey journal bi passé na lan la fi Mor Fadam war a wax. dëgg dëgg ma ñëw mu ne ma non dafa am fu ma bëgg ñu ànd fa. <laughs> ma ne ko fu fu ñu ànd mu ne ma dañuy dem ci sama benn paa. Mhm. ma ne ko lu fexe mu ne ma ah, sa yaay ma ne ko sama yaay ngi fi ak sa papa ma ne ko waaw waaw man fii laa dëkk ci dëkk bi. waaw doomi réew mi laa. yóbbu ma ci benn paa dëgg ma ñëw rek mu ne paa bi ma dugg rek gis pape bi ay ay bagages am yooyu ma ne ko fii nag mu a mu ñaanal la mu a ko ñaan oh. man booba Ndiassane laa xam. wallaay Ndiassane nga dinañ ñëw Ndiassane. Ndiassane laa xam sama papa sama papa bu bopp bi metti sax danaan kunta si di ma taal. ndeysaan nii bopp bi wér. Oh. xamuñu leneen.